xanaa tiit ak ak ak njàqare lu rëy rëy ndax ku xam loolu xam tëkku gi ci suñ borom tëkku ñooñu luut nga ne bu leen suñ borom euh, nat ñu nekkoon ci wàllu googu mu tara leen ko ba sonn suñ borom da koo digal mu gàddaay moom gàddaayee dafa xar suuf dugal ci ñooñu gis nañ ne nag fi mu toll ni ñoom lobby bu am doole lañ am doole lool ci àdduna bi ca duñ bàyyi gis nañ am na volonté bu ci président jëloon bi fi bra euh, président Obama ñëwee ak ñeneen wane na ne pour def ko. waaye boo gisee ni amee doole fii rek nga xam ne am na am na lu xew ci suuf adduna waaw kon kon kon ñun suñu état yi euh, dañuy wax loo xam ne nii li lay wax dëgg-dëgg ak li ñuy pratique ci suuf dañuy xaw wute ndax ku gis ñu dem ba ay homosexuels ñemee organiser ay mariage ci biir Sénégal ah kon nga xam ne am nañu nekk seen doole ci ñun ñuy jàpp yëpp gis nañ ne kuñ ci jàpp it buñ la attee du mujj fenn gendarmerie wala police danañ def seen enquête ba nag waaye ci parquet day mel ne daal fa la coow kon loolu xam nañ du mujj fenn fan yii rek maa ngi doon waxtaan ak sax benn xarit boo xam ne dafa doon liggéey ci ambassadeurs yi nga xam ne ci réew yi nga xam ne dañuy défendre yooyu euh, xëy na bañ a tudd seen waaye réew yi ci européen yi lu mel ne sax ay Danemark ak ay ay Finlande ak ñu ñu ne ñu ñu ne ne maam léegi ni nit ñi xewal mooy nit ñi waa Dakar ak waa Sénégal sax la ñu wax du wax waa da wax di di sécuriser waa Sénégal xale yi dañuy ñëw ne leen par exemple dëkk sàngam laa jógee man lesbienne laa góor jigéen laa war dañ ma faa bundu moo tax mënu faa nekk dañ la ñu automatiquement ñu defal la phénomène boobu nag pauvre ca ñun am nañ xaalis bu bëree bëree bëri am pouvoir am doole ca léegi nit ñi xaalis jaral leen lu ne ñu ci bëree bëri ñi xam ne amuñ yaru diine amuñ yaru mm, amuñ lu ñu jàmm-jàmm ci Sénégal da ngay ñëw ñu proposé nangam te it ñoom dañoo am benn réseau boo xam ne dañuy propagande fi mu toll nii dañuy toog yow di la waxtaan di la convaincre nga ñëw ci ñoom te convaincre bi bu ñu la convaincre dañ koy boole xaalis yow nag bu dee nit nga xam nitu xaalis nga da ngay daal dem mais daal gis nañu Sénégal daal ci ci lesbienne bi na fi am na fi doole lool waaw parce que gis nga vingt cinq personnes nee nañ kenn moo ci am trente ans wax ne ki nga xam ne moo ko dirigé woon ab docteur la lu garaaw nga xam ne kooku bu dee docteur la yaakaar naa dem na bi muy waaj bi muy waajal fonction waad na wala de nangam kooku bu ñu demee ba ci ci domaine boo jël rek fi mu toll ci réew mi am na ci góor jigéen ci artistes yi théâtre kat yi musiciens yi animateurs yi ak ba ci sax am na ñu naan ñuy wax sax tudd sëriñ si kon nga xam ne kon am na yàqu-yàqu bu bu bëree bëri bu am. te loolu li ko waral mooy ñu ci bëri bëri matérialisme ak gëm ak gëm xaalis rek moo moo moo ci am kon daal nit ñi war nañoo delloo seen xel tey li ci gën garaaw mooy ci élève yi la ñuy njëkkee léegi xam nga dañ ne euh, wan ma say ndaw yi ëllëg ma wan la sa ñoom tubaab li gën a garaaw ak lesbienne ndax ñu gën a garaaw mooy dañuy ñëw di njëkk nit ñi ci xale yi dañuy dugg ci collège yi ci lycée yi am na ci ñi jàpp ñu ñu ne am na benn école bu siiw bu ñu wax ne ci lañu ci lañu jàng am na étudiant yoo xam si sam année kooku nga xam ne kon waroon na nekk leneen waroon na nekk ci xelam ak ci boppam leneen dul nekk homosexuel waaye daal phénomène bu garaaw la boo xam ni tubaab yi nag bàyyiwuñ surtout réew mel ne Sénégal nga xam ne ñu ngi wër di kenn ku nekk ñu la wan la nga légaliser homosexuel ci légaliser wuñ ko moo tax ñoom it dañoo teg bët Sénégal ci xam nañ ne it léegi nag acteur de semence bi ci dëkk bi loolu nag état bi da ci am part de responsabilité bu mag mag dafa war a fexe ba ndaw yi am luñ jàpp su ko ñu yar leen njàng mi éducation bi ñu jigal ci ay valeurs culturelles ak diine ak suñu xam-xam suñu cosaan soo defee xale yi buñ amee lu dañ am jomm jomm ndax loo pauvre pauvre pauvre ci am jom am ak looy looy bañ doo dugg mel noonu ndax loolu moom euh, soxna si lu loo ci waaye am ci xaalis ak loo ci am lu mu riis riis daana ci ak trop ngay mujj ndax du lu yàlla gërëmut la te nag dañoo dañoo bàyyi ñi nga xam ne am na ñoo xam dañu nekkoon ñu génne leen réew mi da ngay gis di ko envoyé ci dëkk bi ñu wan leen nekk ci ay ci lu baax léegi nag loolu boo ko gisee yow da ngay jàpp ne léegi kee li nekk ne moom il faut ma jaar ci loolu dem loolu moo tax waaye daal tiit naa ci loolu daal fi mu toll nii tiit dañ ndax jar na tiit ndax ku xam li ci yàlla tëkku ak lim ci lim ci kiyee waaye loolu lépp dafay wan ne l'islam Sénégal daal nañ gën tënkuwaat ci diine te gën a yaraat ndaw ñi te njëkk ci ndaw ñi balaa tubaab yi ñëw ndëkk ndëkk ci ñoom parce que day tubaab yi ñëwatuñ de dañuy formé ci suñu biir ñun ñeen def leen ay lesbiennes ñoo ñu ñëw di di convaincre suñu suñu rak ak suñu doom pour dugal leen ci ci bi loolu nag moo doon lu garab bi ma gisee benn benn benn kii boo xam ne directeur directeur de commerce intérieur moo ko benn man dama tiit léegi kooku moom benn responsabilité la am ci bàyyi loolu mu tudd comme moom nee liy dugg senegal lépp ñoom ñoo ko war a saytu ba xam ne lii normal na ñu doog ko dugal ma gis moom mu bind benn note arrêté wane ne dugg na ba tasaaroo ci Sénégal loolu lu doy war la kon léegi li ñuy wax parents yi rek mooy comme lu mel noonu xas na dugg ci réew mi ba noppi état bi na na jël ay mesures yu yu yu ferme ba ba ba leneen ba ñu duggati ñi ci des nag ñu jéem a xool ba nga xam ne ndaw yi nga xam ne ñoo ko ndax ay nitaal la yoo xam ne yooyu mooy dama la wax léegi rek ci ne tubaab yi dañuy fexe ba njëkk ci ndaw ñi. fi xam nañ ne xale yi ci ay jouets lañ bëgg ak ay tàngal ak yooyu dañuy fexe ba balaa banaliser leen nataal yooyu ba nga xam ne ñoom dañ xale bi nga xam ne am na sept ans dana xam ne lesbienne am na góor ak lesbienne a jigéen am na homosexuel góor ak góor am na nga xam ne kooku bu nekkee ci boppam bi mu màggaale ko day jàpp ne lii lu dagan la lii lu naturel la loo xam dafa war kon ñu ngi ñu ngi soññ parents parents yëpp ñu gën a fagaru ci yar seen xale yi bañ a découragé parce que gis nañ ne Sénégal nag parents yu bëree bëri xale bi sa sa doom bu xëyee ba jant so war nga xam ci li muy dugg bu jàngee responsabilité bi nga xam ne ki nekk ci école bi moo ko am waaye bu wàccee yow parent bi war ngaa jéem a gëstu xale lu mu yendoo ba xam mémoire am lan la wala yan xalaat lay am ba xam ak yan gis-gis la am yoo xam ne yu bees la yoo xam ne nga xam ne tàngal ku ne xam ne ne gone yi moom tàngal faaw ñu ko jëfandikoo ñu jox la boyru tàngal boo xam ne dañ ci gis ñaari góor ñu def na ko sunu wala ñaari jigéen ñu koy def loolu dafa dafa doy war kon loolu état bi moom moom la ñoo ci war a jël seen responsabilité man bi ma gisee directeur commission intérieure def ci benn note wax dëgg yàlla moom loolu da cee tuuti sax léegi nan la def ba loolu dugg ci ba loolu dugg ci réew mi te it war naa jël ay engagement yu fer fexe ba ñu ramasse ko comme ni ñu ramassé produit yu yu loolu moo gën a bon mar produit bi primé ci am réew ndax day yàq gëm-gëm day yàq fois kon daal ñi ngi soññ ñëpp ñu gën a góorgóorlu ci yaraat ndaw ñi yaraat xale yi ndax fii adduna bi toll képp ku yoru sa doom bis dana ñëw nga màcc sa baaraam bi cax ndax da lay dugal ba dugalal loo xam ne nii boo léegi doo ko xam loolu mooy li nga xam ne ñu ngi koy dénk ñëpp ñu bàyyi ko xel bu baax a baax waaw jërëjëf soxna Ndeye Maguette ñu ngi lay sant bu baax di sant mboolem euh, site 24actu di nuyu nu mi nga xam ne ci kër gi la bokk ak mboolem techniciens yi ci nekk yëpp di ñaan yàlla suñ borom mu defal leen ci ndam ba ngeen àgg ci fi ngeen bëgg a kawe ci yeneen télévision ak yeneen yu bari topp ci. te it di jéggulu bu fekkee ci kàddu yi am na ci loo xam ne njuumte la xëy na marat doomu aadala ak ñu gàttu xam-xam li ci bég ñu ngi koy sant yàlla di jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah